ne golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Gaynde. maa tay Simba Gaynde la. non waaw garaaw loolu am ay détails la. nga yooyu yëpp mbiri góor la. yaa ngi góor foog nga jaar jaar. man simb naa ba tay fu ne. Baye Mandione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si. buy wax erreur la buy dox erreur la. lu mu def erreur loolu la mu ne man sama lu luñ ko waxatee sax man moom mën naa assuré loolu. billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk liggantuwuma junni xoyantaan faalewuma leen dégg ma de téeméeram liggantuwuma man xam nga lan laa xelaat ñu ba pare mu ñëw man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ci luttetv.com dal leen ak jàmm tey nag émission bi ñu ngi ci dalal Mamadou Mansour Diop nga xamante ne moom mooy njiitu Galsen 221 ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci làmb nag moom mooy internet dafa nekk mbir moo xamante ni dafa fës ci làmb jamono jii gis nañ site internet yu bëri di yëngu ci wàllum làmb ñu war a wax les point positifs waaye war a wax aussi les point négatifs ku ne xam ne itam 2019 bi ñu génn combat yu mag yu ñu fi bëri yëpp pay per view moom moo nekkoon système bu ñu utiliser war nañ ci waxtaan aussi ak Mamadou Mansour Diop mii nga xamante ne xam-xamam màcc na lool ci wàllum internet et aussi mu ngi liggéey ci site internet bi nga xamante ne bokk na ci site internet yu ñu gën a ràññee fii ci Sénégal Mamadou Mansour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bës euh, maa ngi nuyu internetu lu TV yi euh, ku si nekk si sa tour ak sa sant euh, voilà quoi yaa sa à dire. Mamadou Mansour Galsen 221 lan la exactement. Euh, Galsen 221 c'est un site d'information boo xamante ne site généraliste la. donc euh, li muy traité bëri na dina traité sport buzz tu vois people information en général quoi tu vois noonu dina traité aussi ay information ci làmb. oui absolument ah. mais essentiellement donc ay reprise les doon si lu TV voilà quoi on n'est pas spécialisé dans ce domaine là moom Mamadou Mansour ñu gis léegi jamono juñ toll nii site internet yu bëri dañuy yëngu ci wàllum làmb bañ nañ ko ba làmb bu njëkk ba bu amaan da nga doon gis benn ñaari caméra nga fa doon gis te ay télévision la ñuy nekk léegi ñu jël benn combat bu mel ni Gris 2 Reug ñu seetlu ni Reug Reug bu mu daanee Gris 2 lu mot ay trente caméra ak 30 micro wër nañu Reug Reug di ko interviewé lu waral loolu. bon en fait tu sais euh, jamono day dox bu njëkk ba. bon on va nga ko daan cette année tu RTS si la entré en jeu avec Bantamba avec ñoom Bécaye Mbaye cetera mais vraiment euh, ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci diaspora bi et autres ils n'avaient pas les moyens pour seetaan lamb tu vois donc si la ay sites yu mel ni Lutte TV ñëw bon Lutte TV nag bi mu ñëwee euh, dafa daal di euh, encourager les autres pour que ñu dikk tu vois parce que caméra yooyu du ay caméra télévision kese donc ay caméra sites yu bëri lay doon tu vois ay site internet ay Dakaractu et cetera ñoom ñëpp suñuy ñëwee nag day jox làmb beneen jëmma boo xamante ne amu ko woon tu vois donc première première fois bi nga xamante ne def nañ sax pay view bi donc euh, j'ai vu que stade bi dafa fees dell tu vois au départ nit ñaa ngi doon casse tout mais man conclusion bi ma si tiré mooy ça a permis à ce que nit ñi am volonté wu dem si stade bi tu vois dundal na stade bi mais ça a permis en parallèle ñi nga xamante ne ñoo ngi si euh, diaspora bi ñu mun seetaan làmb bi tu donc y a que du positif quoi. jàpp nga ni internet dafa yokk ci làmb mais wàññiwul. non da ko yokk ak doole man dama jàpp ne làmb amuloon doole sax tu mu ngi soog a am doole parce que léegi euh, YouTube dafa am doole tu vois internet dafa am doole Facebook dafa am doole du ay sénégalais rek ñoo koy gis ñeneen di dinañ ko gis mu leen di neex et pense pas que ça soit hasard sax bi Lutte TV ñëwee pay view bi ñëw si la gars yi yenn mbër yi commencé di dem di di di bëree si ay MMA tu donc euh, c' est pas un hasard quoi am na leneen lu mu jur loo xamante ne tey jii maanaam ku mel ni Siteu mun na nekk États-Unis ba pare joxe ay référence de combat am du soxla mu yóbbaale day wax rek man maay Siteu ñu tape ko ci internet bi ñu mun a gis déjà ay combat yoo xamante ne. am et cetera tu vois alors que bon tey jii su ma bëggoon gis ay combat tafaage yu njëkk et cetera bon ce sera un peu difficile à moins que ma dugg Lutte TV gis ay rétro et cetera mais sinon. mais jamono juñ toll nii gisoo nii tamit mbir mi day dañuy bëgg ëpp doole parce que léegi ku jóg rek am nga sa benn téléphone wala sa benn caméra bu ndaw boo xamante ni jënd nga ko làmb bu am nga dem filmer donc jamono juñ toll nii ñu gis ni que tey jii booy liggéey promoteur sax war a joxe accréditation day am plus de cinquante cent sites internet yu taxaw bëgg accréditation jàppoo ni loolu à la fin dina xaw a non je pense pas je trouve juste que organisation la laaj. parce que xam nga xool asamaan asamaan si moom joxul ngay buuxante quoi tu vois internet c'est assez vaste bon nañu yaatal mbir bi man je suis pas je fais pas partie de ceux qui pensent que internet bi fu mel ni dafa saturé non saturé wul c'est juste que ku ku nekk da nga war a aussi dara tu vois wala ñuy wut euh, beneen façon boo xam ne nañ ko procéder par exemple Lutte TV yor exclusivité bi après mu jox ñeneen yi quoi tu vois mais je pense pas que ce soit nécessaire ku nekk ñëw cinquante nit wër benn mbër tu vois wax na gën a mën a organiser wu je pense. quel est côté le le côté négatif de la l'affaire mooy internet lépp mënul baax cent pour cent lu TV ñëw na dëgg la am na beaucoup de positif bu mu indi mais selon toi quel est l'aspect négatif. Euh, de la chose tey jii ku mu nekk Lutte TV Galsen 221 Dakar Actu Sénégal et cetera Leewtoo ban aspect moo nga ci gis mu nga xamante ne vraiment lii rafetlu woo. bon dafa am loo xamante ne fu mu mel nii bon dafa nekk di rax si milieu bi. xam nga tu vois euh, bon c'est un peu libéralisé mais c'est tout à fait normal parce que c'est le principe même de l'internet tu vois euh, ku nekk rek day ñëw bon bëgg a bokk mais da siy indi ay yëf yoo xamante ne bokku si tu vois bon yu mel nan bon c'est comme euh, tey jii euh, làmb ji bon dafa am ay bon mënuma leen wooyee ay mbër c'est plus des comédiens qu'autre chose tey jii dañuy am tribune pour wax du n'importe quoi te su ñuy waxee naka sa noonu dina xaw a yàq image yu làmb su yàqee image yu làmb bon sponsor yi naturellement dañuy daw su sponsor yi dawee ben promoteur bi il va pas se ruiner non plus pour euh, enrichir les lutteurs il faut que moom ay sponsor yoo xamante ni nañ si jàpp te tey jii ak pay per view bi ni mu ñëwee xam naa ne nekk sponsor yi dinañ gën di ñëw dinañ gën di dugaat si làmb tu mais faudrait pas aussi ñeneen ñëw yor seen caméra rek filmer du n'importe quoi euh, voilà en parlant de filmer tey jii yow tu es responsable xam nga loo war a génnee ak loo warul génnee tey jii si tu me donnes la parole ma wax fii di dara si kenn loo xamante ni waruma ko wax di nga ko seppi teg na le ñoom liggéey boobu du leen si fekk tu vois du ñu seppi dara dañuy ñëw lépp ñu dugal li ñuy gën a yàkkamti dugal sax mooy ñaaxum mooy toj-toj tu vois am na ku ñu jam am na ku ñu bon duñ ko censurer non plus mais duñ ko wane tu waa parce que daam ay image yoo xamante ne day yàq image lamb mais lan ban la moo ci solution est-ce que c'est à l'autorité de saisir tey jii vraiment de se saisir de cette affaire-là est-ce que état moo ci war réagir wala CNG wala yow selon toi qui est habilité vraiment à réagir par rapport à cette affaire-là. tu sais man dama gëm ne ne que autorité président ministre président CNG. mënul changer lépp tu vois li ma gëm mooy que ne union booloo moo mën a changer milieu moo mën a changer domaine. mooy ça revient waxoon sànq. internet yi faaw ñu booloo. foog ñu booloo foog ñu ñëw toog daje xam ay jours yoo xamante ne par mois yoo xamante ne dañuy daje ñëpp ay daje waxtaan si différent domaines que ce soit la politique l'économie la lutte ñu xool xam lan la ñuy wane nan la ñuy sensibiliser nit ñi nan la ñuy defee ay micro trottoir dem waxtaan ak nit ñi. léegi Mamadou Mansour sànq ba léegi yaa ngi tudd pay per view ku ne xam na Lutte TV liggéey bu mu liggéey ci pay per view yaakaar naa sax ñu fi indi Lutte TV ñoo fi indi pay itam waaye lu ñu lay laaj mooy pay per yan ñooy aspect positif yi balaa ñu ñëw ci aspect négatif yi. aspect positif yi mën naa citer benn mooy la fait que day yokk affluence bi au niveau des stades. parce que nit ñi am na ñoo xamante ne moom dañuy ne suñu naree fay pay per view bi <laughs> nañu dem stade ba seetaan ko live and direct ak seen bët moo leen gënal. pay per view tamit am na ay fay selon toit yan ñooy failles yu pay per jot a dund. bon failles yi nga xamante ne pay per jot na ko dund première fois bi ngeen ko defee bon na ma seetlu ne ne que euh, y avait quand même des problème de de réseau tu vois dafa mel ni euh, da doon daw nit ñi dañu doon obligé di connecté waat. Euh, pass yi aussi dafa mel ni j'ai eu l'impression que am na ñoo xamante ne réussir woon nañ di dugal ay code plusieurs fois mais après j'ai je pense que jóg ngeen si à temps boo amoon conseil buñ boo ñuy jox ñun ñuy liggéey ci pay pour view ñun ñuy liggéey ci Lutte TV ban conseil lay doon euh, ngeen gën a duggante ak Siteu on va te poser un peu une question lutte parce que tamit ci luttetv.com lañ nekk mënuñ fi jógee vraiment wax nañ ci beaucoup d'aspects autour fi jógee te laajuñ la làmb est-ce am nga mbër waaye man Modou Lo mooy sama bër. Modou Lo mais Modou Lo ñu ngi dox combat ak Ama Baldé. ok yow lan nga xalaat ci combat boobu. ah mais combat la ah. soo nekkee roi des arènes munoo bañ kenn. est-ce que tu que Modou fu mu toll nii war na jël Ama Baldé vu Modou Lo ci lu mu jóge nga xamante ne jóge na ci couronne roi des arènes euh, Ama Baldé xaw na ko sori tuuti est-ce que Modou Lo war na risquer jël Ama Baldé. waaw xam nga bon tey jii dañu xaw a sonn aussi si combat am Modou Lo Eumeu Modou Bombardier tu vois day xaw a stéréotypé torop quoi donc dafa jot ñu moom it mu jox chance jeunes yi bon mu doon tamit challenge si moom jël risque comme tu dis voilà mu jël booy bi. je pense que genre avis yu mel ni la ñu soxla parce que suñu milieu làmb ji peut-être parfois nit ñi dañuy ragal joxe seen avis mais on a besoin des gens comme vous nga xamante ne vous faites des analyses sans pour autant prendre parti te joxe seen avis ni ngeen ko gisee Mamadou Mansour lan ngay tàggatoo. bon li may tàggatoo mooy xanaa di la gërëm di la sant bon di gërëm internetu Lutte TV yi euh, voilà euh, voilà quoi c'est ça. waaw mbokk yi donc loolu la woon tey mu nekk mu euh, Mamadou Mansour Diop lañ doon dalal nga xamante ne moom muy njiitu gal seen cent Galsen 221. xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Gaynde. waaye maa tay Simba maa maa maami Gaynde la non waaw garaaw loolu am ay détails la nga yooyu yëpp mbiri góor la yaa ngi góor foog nga jaar jaar man simb naa ba tay fu ne Baye Mandione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne man sama lu luñ ko waxatee sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk ba def bu ma lijjantiwuma junni xoyantaan faalewuma leen dégg ma de téeméeram lijjantiwuma leen man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah